واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد موك جلتي سني سبحانه وتعالى موماي نتو اي جامم تي لوكو سوب اي خيتي نتو يوخني خامني دينا لين كو نتو واي نتو ام مول سبحانه وتعالى اي دوخالين am ci ak xereñ gu ci nekk goo xam ni subhaanahu wa taala daf koo boolewaale ci biir nattu yooyu muy ay jubluwaay yoo xam ne yu màgg la loolu bu fekkente ni jaam bi taxaw na mu bañ a yam ci nattu rek ci teg bëtam ci métit bi nga xam ne moo ca ne ak jafe-jafe ak coono bi nga xam ne moo ca ne waaye mu xool la nga xam ne moo nekk ci ginnaaw nattu ba ci lu mu koy delloo ak lu mu koy indil ak lu mu koy jariñ ci bu fekkee jaam bi taxanoo mu seetlu jëflante bi yàlla di jëflanteeg jaam ñi ci nattu yi ñu jël di ko teg ci seen kaw bu demee ba seetlu ci ba gis ca xereñ googu ci yàlla subhanahu wa taala def ak ni mu cay doxalee loolu dina ko yokk mu gën a gëm yàlla gën a wóolu yàlla gën a xam ne li nga xam ne mooy nattu ndakate day jóge ci yàlla waaye dafay delloo ci yàlla waxuma day dellu ci yàlla may day delloo nit ñi ci yàlla nattu gii ñëw ci yàlla la jóge kon bul yam rek ci étape bu njëkk bi étape bu njëkk bi nga xam ne ñu bari ci nit ñi fa lañ juumee ci li ñu jëflanteeg nattu mooy bu ñëwee li ñu soxla mooy jàmbat ne nattu bi metti na foofu ki ñuy jàmbat mooy yàlla yàllaa ñoo ko teg yàlla ñoo ko teg yàllaa ñu nattu yàllaa ñu nattu waaye nattu bi effet bi mu war a def ak impact bi mu war a am ci ñoom ci delloo leen ci yàlla delloo seen mbir lépp ci yàlla léeg-léeg deuxième étape boobu la ñu bari dul nangoo franchir ngir dem ci moo tax suñu borom subhaanahu wa taala ne suñu borom bu fekkente ni teg na la jafe-jafe amul kenn ku ko mën a teggi ku dul moom waaye bu la nammalee yiw itam ngëneelu yàlla amul ku ko mën a delloo yàlla mooy xool ku ko soob ci jaam yi mu defal la ngëneel te kenn mënu ci dara ndax mooy ki nga xam ne mooy borom njéggal ak yërmande yonent bi alayhi salatu wasallam waxoon abdullah bin abbas ne ko xamal ne bu mbooleem doomu aadama yépp dajaloo woon ne dañ lay jariñ mënuñ laa jariñ ci lu dul loo xam ne fekkoon na yàlla bind ko ci yow ba noppi bu ñu dajaloo woon tamit ne dañ lay lor mënuñ laa lor ci lu dul lu yàlla bindoon ne dina la dal xalima bi nga xamante ni bii moom lañ doon bindee dogali jaam yi teggi nañ ko lu yàgg fañ ko doon bind itam far na fend na des desu ca yokk lenn wala ñu say soppi lenn loolu nag dafa nekk benn résultat boo xam ne ngir la moo xam ne bu fekkente ni jaam bi jaar na ci ay nattu ak ay jafe rëy rëy rëy ak lu mu souffrir souffrir ci nattu li physiquement bu xoolee ci beneen côté ci léegi nekk na lu mel ne làmp bu tàkk ci xolam loolu nekk na benn njariñ loo xamante ni àdduna ak li ci biir mënu boo xam ni ak benn énergie boo xamante ni c'est inépuisable kenn mënu koo jeexal amul fu moo tax yonente bi alayhi salaam waxoon ne maa utiya ahadun ataan xayran wala awsaa min asabr amul ku yàlla jox loo xamante ni gën naa yaatu gën naa baax muñ muñ bi nga xamante ni bi loolu muy tàkk-tàkk boobu nga xam ne mooy tàkk ci xolu jaam bi moo koy may force ci mën koo def mën a dékku li nga xam ne mooy ndogalu yàlla yi fekk ne xam na li nga xamante ni dëgg-dëgg ndogal yi muy muñ ëllëg dina ko ko jural loolu la suñu borom subhanahu wa taala di jublu léeg-léeg ci yenn jafe-jafe yoo xam dana ci jaarale ay jaamam ndax dafa bokk ci ay jubluwaayam moo tax bi muy wax ci julit ni bi ñuy jaamaarloog seen i noonu mu metti lool te nit ki mën a posé wu question lu tax ndax moom am na kàttan ci dimbali leen am na kàttan sax ci fegal leen noon bi ba duñu jaamaarloog moom waaye dina leen jaarale ci jafe-jafe yooyu li yumaxisa allahu alladina amanu wa yumxaqa alkafirin muy tamxiis mooy yàlla faw mu fóot la yow julit bi fóot sa xol ci yim lay jaarale ci épreuve yoo xam ne dafa lay raxas ci lépp loo xamante ni waroon na mën def sa xol ba jafe-jafe boo jànkoonteeg moom kenn mënu koo teggi ku dul yàlla nattu yi ngay jànkoonteel kenn mënu nga dem ba am certitude ci loolu mu nekk yaqin ci sa xol nga am kóolute ci yàlla ci bépp jafe-jafe booy dund rek nga am ci kóolute ci yàlla ndax dafa nekk loo xam na nga koo dund mu nekk expérience yàlla jaarale la ci loolu waaye mooy jafe-jafe yi mooy génne ñi nga xam ne dañoo raaxaloo ci biir mbooloo mi te bokkuñu ci ndax bu yëf yi ñeexee rek ñëpp ne ci lañu waaye bu jafe-jafe yi ñëwee ñu xam ñu dëggu ak ñi nga xam ne dëgguwuñ kon loolu ay jubluwaay la yoo xam ne suñu borom am na ko ci jafe-jafe yooyu muy jaarale jullit ñi bu fekkente ni itam seetlu nañ doxalin boobu suñu borom subhanahu wa taala nettali nañu nu mu ci jëflanteeg ay jaamam jaarale leen ci mel ne ku leen doon for defal formation boo xam ne résultat bi fi muy rek mooy làmp boobu tàkk ci seen i xol muy làmp yaqin boobu tàkk ci seen i xol nga gis bi ñu yàlla subhanahu wa taala nettalee xew-xew bi nga xam ne dox na diggante yonente yàlla yusufa alayhi salaam ak frère am muy doomu baayam ya doomu baayam yi soxor ak keñaan bu dox seen digganteeg yusufa moo leen puus ñu jël ko ne dañ koy dem sànk ji ndax gis nañ ni baayam daf ko bëgg bëggal boo xam ne bëggee leew leen bëggeew leen bëggeel bu toll noonu ñu ne la yusufu wa waxuhu ahabu ila abina minna wa nahnu usba inna abana la fi dalalin mubin léegi fii mbir mi di nekk léeg-léeg mooy seen jugement bi dafa nekk jugement bu erroné ndax xooluñu ci yusufa ak ci seen bopp lu war a tax ñu xam sabab bi tax seen baay bëgg ko mbëggeel bu mu leen bëggul mais ñoom dañ jàpp ne rek erreur bi ak problème bi ci seen baay la nekk ñu daal ni koy culpabiliser léegi loolu tamit indi fiiraange bu ñu fiir ci Yusuf ñu bëgg a régler problème boobu mais ñu ngi dem duggaat ci beneen problème bu ko gën a compliqué mooy léeg-léeg bëgg a régler problème ci problème ñu laxasu ci seeni problème dem jël Yusuf dañ koy sànq léegi bi nga xamante ni jël nañ Yusufa dem yóbbu ko di ko sànq yàlla daal di sàmm Yusufa muccal ko ci seen pexe yooyu jëlal ko boppam sàmmal ko boppam waaye moom ci boppam taxul mu musal yusufa ci ay jafe-jafe dafa jëlaat yusufa delloo ko ci ay natt ak ay jafe-jafe ngir yóbbu ko ci benn résultat boo xam ne bu am solo la ndax yusufa bi mu demee ci dëkk ba nekk fa ba léegi nag problème yi nga xam ne moo nekkoon digganteem ak ay frère am yépp jeex yàlla indil ko yeneen problème feneen fu mu ko séntuwul woon mooy ci biir kër ga mu nekk soxna soo xamante ni bi moom moo fa nekkoon war koo yor yàlla def ay natt ci digganteem ak foofu bañu tuumaal ko fa tuuma woo xam ne moo ko jël dugal ko biir kaso mu dugg ci prison bi ba mu fa duggee dajafaat ñaari nit ñu laaj ko ci xam-xam lu mu leen tontu lu tax ñu am fu ñu ko teg kenn bi ci ñoom ñaar ñu exécuté ko ka ci des ñu acquitté ko libéré ko dafa wax ki nga xam ne jàppoon nañ dinañ ko libéré boo demee na nga tudd sama mbir ca buur ba fa fàttali ko sama dossier yàlla buggul loolu ci moom ndax boobu xol baa ngay jëm ci keneen ko dul yàlla yàllaa ko ko dugal yàlla bëgg na ci yusufa mu bañ a gestu keneen ku dul yàlla bañ a yaakaar ni am na keneen ku ko mën a génne fii mu nekk ku dul yàlla moo tax ba mu ko waxee koo kooka kooka dem fàtte moo tax mu ne fa ansaabu cheytaanu bi rabbihi fa labisa ci ci ca ca prison ba ay at yoo xamante ne desaat na ko fa ndax kooku mu yóbbante woon fàtte na lañ ko yóbbante loolu yëpp coobare suñu borom la ba yàlla jaarale yusufa fu mu ko bëgg a jaarale lam fa war a toog mu toog ko fa yàlla génnee ko ni ko sopp moom mu génnee ni ko pas ni sopp yusufa mais ni sob yàlla li sob yàlla mooy buur ba mu doon yóbbante ci moom moo gént gént bu ko jaaxal mu laaj ko ñi ko jege ñoom ñëpp ñu lottu ci mën ko koo tekkil mën ko koo firil ka mu yóbbante woon fàttaliku yusufa ma nga xam ne moo leen doon tekkil seen gént yooyu sa prison ba mu ne buur bi yabal ma ci kooku yabal ma ci kooku ma dem laaj ko sa gént bi dina ma dina ma ci wax dara buur bi daal di koy yónnil boppam mu dem fekk ji ko ca prison ba laaj ko la nga xamante ne bi moom la buur bi gis mu tontu ko ca wax ko ca xam-xam ba mu delloo ci la ko yàlla subhaanahu wa taala génne ci génne boo xam ne génn génnek yëkkati la génnek teraanga la du génnek saraxu wala ñaan sa mbokk mbindeef boo xam ne boo lëgee foo ko seen naan ko jërëjëf yaa ma defal naa ak sàngam kon nga gis ne ñaari génne ñi bokkul loolu nag yusufa da cee jële lu am solo mooy xam ne ndakate yàlla mi ko tegoon ci natt yi amul ci keneen kum mën a laxasu kum mën a wéeru ku dul moom ngir yàlla génne ko ci léegi loolu moo tax bi mu demee ba yàlla jox ko nguur yàlla jox ko teraanga yëkkati ko bi muy wax ak ay waajuram bi mu gisee teraanga bi ko yàlla defal daf ne yow sama baay haada tawilu ruyaaya min qabl am na benn gént bu ma mës a waxtaan ak yow ba nga ne ma bu ma ko nettali samay frère sama mbokk yi sama doomu baay yi ndax su ma leen ko nettalee dinañ gis ne am na lu ma yàlla di waaj a defal ci ngëneel ñu jëm maa fexeel mooy nëbbatu bi léeg-léeg nit ki di nëbb ay mbiram li naan ku ñu xam fi nga jëm doo gaaw loolu ma waxtaane woon ak yow nag ci gént boobu ma gisoon gis naa ni tey jii yàlla mottali na ko yàlla def na ko te yàlla defal na ma ngëneel bu rëy bi nga xam ne génne na ma génne na ma ci prison bi id axrajani min as-sijn kon Yuusufa fàttaliku na ne yàlla moo ko génne ci prison bi id axrajani min as-sijn moo ma génne ci prison bi wa jaa bikum min al-badwi te moo leen jële ca àll ba ngeen nekkoon jële leen Sham indi leen Égypte ngeen ñëw fii ci dëkk taax yi kon ngëneel gi ma am yëpp yàlla moo ko def kon mu fàttaliku ngëneelu yàlla loolu mooy def yaqiin ci xolu jaam ba bu jaaree ci jafe-jafe yooyu yàlla fóot ko ci fóot ci xolam mu jële ci benn certitude ak benn yaqiin boo xam ne da koy xamal ne amul kenn ku ko mën a dimbali amul ku ko mën a xettali su nekkee ci ay jafe-jafe ku dul yàlla loolu nag nekk na ngañaay lu rëy rëy loo xam ne bu ci nit ki génnee ci ay jafe-jafe deful lu dul yokk waaye wàññeekuwul naka noonu tamit bàyyam yaqub yaqub bi ko ay doomam ñëwee ne ko boole ñoog yusufa ñu ànd ak moom dem ci àll bi fowi dinañ ko wattu loolu daf koo xaw a tiital indil ko njàqare ndax day ragal ñu yóbbu ko sànku muy jéem a ut pexe bu mu def ba aar yusufa fekk ne xamul ne day pexe waaye yàlla moo nekk ci ginnaaw yi pexe mu ne leen damay ragal ngeen yóbbu ko ci àll bi ab till daal di koy lekk ndax mun ngeen ko faa bàyyi nekk ci seen i foofu till ñëw jël ko lekk ko loolu mu leen wax noo seulement protégé wul yusufa pexe la waaye loolu sax moo sànk yusufa lam doon jéem ci ay pexe ngir sàmm yusuf moo sànk yusuf ndax ba ñu demee def lañuy def bi ñu ñëwee dañ ne inna dahabana nastabiqu wa tarakna yusufa inda mataina fa akalahu dhib lam leen waxoon ne lay ragal loolu moo leen inspiré jox leen xel ba ba ñu defee la ñu def bi ñu ñëwee lay bu mel noonu lañ ko jox kon daanaka daa mel ne moo leen xelal kon mu doon jéem aar yusufa ak fekk xel waaye loolu jariñu ko dara bi nga xamante ne bi dem na ba gis loolu mu seetlu du ay stratégie du xereñ du lenn mais dëgg-dëgg yàlla li ngay def ay sabab la rek yàlla subhanahu wa taala rek moo mën a xettali ab jaamam ku nekk ci ay jafe-jafe moo tax biñ demee ba génn seen xel ci yusufa ñu dem ba war a ànd ak benn yaamin mi nga xam ne mooy rakku yusufa pour yóbbu ko égypte moo gën a sori fuuf fiñ doon wax ne ndax dañ doon wax yusuf ci ginnaaw kër gi rek lañ jëm ak moom fowi ji benn yaamin nag ñi nga nar a jëm ak moom ba égypte jóge sam dem ba égypte ñu ñëw di ko ko laaj foofu amaat na njàqare li nga xam ne moom la amoon ci mbiru yusuf mu ne ndax mën naa leen a wóolu ci moom lu dul rek ni ma leen wooloo woon ci yusuf mooy sama xel dalul maa ngi leen koy jox waaye li mu ci teg mooy fallahu xayrun xaafidan wa huwa arhamu rahimin bi yu leen damay bañ ngeen yóbbu ko nangam am di wax loo xam ne sax xam na ni xëy na mën naa bañ am waaye waxi lay la woon bi yoon defu ko dafa delloo mbir mi ci yàlla ndax jàngee na ci yoon bu njëkk bi ne la moo xoon ci ay pexe jariñu ko dara loolu tax ci ñaareelu yoon bi mu jël mbiri delloo ko ci yàlla ne fallahu xayru xiflan wa huwa arhamu rahimin ba ñuy dem ma ngi leen di xelal waaye lam leen di xelal sax da caa def ndànk ndax bañ na la ko daloon ca yusufa timit ci di jema def ay pexe far pexe ya sax jariñu ko muy ragalat lu mel nonu dalat ko ci domam yi mune len ya bani ya la tadkhulu min babin wahidin wa duxulu min abwabin mutafarriqa bu len duggé ben bunt da ngeen démé ba jup dëkk ba na ngeen tasaaroo ngeen xàjjale ko dugg ci ay yoon jaare ci ay yoon yu bokkul ngir seen ànd bi ngeen di ànd di nekk gurup bañ a attirer trop attention wu nit ñi ndax am na lu bëri lu mu leen di ragalal ci ay pexe yoo xam ne ma mënees na leen ko pexeel wala ñenn ñi di wax ne bët la doon ragal ci ñoom waaye daf ne wa maa ugni ankum min allahi min shay in al xukmu illa lillah alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkal al mutawakkiluun daf cee teg ne amalu leen amaluma leen denn mën-mën ci mbiru yàlla li ma leen di wax xalaat la bu ma xalaat jàpp ne lu baax la ci yéen waaye sax sukkandikuwuma ci loolu ci yàlla laa sukkandiku moo tax mu ne inil xukmu illa lillah yàlla mooy dogal yàlla mooy def ci ay jaamam lu ko soob bu yàlla nammee ci jaam dara fexe di ndiw ko kon damay damay sabablu rek jox leen loo xam ne sabab la bu ma yaakaar ne mën na leen a jariñ waaye wa maa uxni ankum min allahi min shay loolu moo tax mu ne waqirlu na yàlla te képp kuy wakkirlu ci yàlla nga war a wakkirlu foofu nga gis ne discours bi wute naag bu njëkk ba mu leen di bàyyi Yuusuf te moo ne ni mu bëggee Yuusufa sax bëggeewu ko Benyamin waaye gis nga loolu yëpp jàng la yoo xam ne yàlla da ciy jaarale ay jaamam yoo xam ne da ciy ubbi seen i bëti xol ñu dem ba am yaqin boobu nga gisaat tamit yonente bi alayhi salatu wasallam mook jullit ñi keroog bi ñu ubbee màkka dégg ne waa Taif dajaloo nañ waa Hawazin dajaloo nañ ak yenn xabira yenn kër ci kër yi arab yi dajalo taif ne ñoom ñi ngi pare di xaar julit ñi ñëw ñu jaamarloog ñoom mu dem fa bi ñuy dem keroog liñ jobbu ci ay nit mat na fukki junni ak ñaar fukki junni ci yi ak muhajirun yi ñaar ci ñi nga ñoy wacc be ci soga tu biñ di dem ci yoon wi seen mbooloo mi dafa bari ba kenn naan tay de kenn duñu gagné ndax suñu neway fàtte mbir mi du mbiru kàttan gu bari doole wala mbiru bari way ci mbooloo wala mbiru bari ay ngànnaay ndimbal dëgg dëgg dëgg dëgg ci yàlla la jóge moo tax bi mu yebal malaaka yi mu leen di dimbali daf ne wa maa jaalahu allahu illa bushra lakum wa li tatmainna qulubukum bih wa man nasru illa min indillah malaaka yi ma yebal sax li ñuy foor foor foor bu leen jàpp ne ndimbal ak ngañaay ci ñoom la dépendre ndimbal ak ngañaay ci ndimbalu yàlla la lay dépendre loolu ba ko kenn waxee yàlla nattu leen ñu dem jaamaarloo ba tàmbali wàcc bees yi nga xam ni ngëm yàlla gi dese naa dëgër ci ñoom formation bi des na daal di tàmbalee dellu ginnaaw lool déstabiliser jullit ñi seen i rang daal di jaxasoo ñu tàmbalee di leen néewal doole mu dem ba daanaka yonente bi alayhi salaam moo fa des ak mbooloo mu néew ñu wër ko muy jéem a dellu si delloo si waat li nga xamante ni mooy turu bi di leen delloo si waat ba ñu dellu si waat ci li li yàlla wax ne wa anzala allahu sakinatahu ala ala rasulihi wa ala almuminin mooy ne yàlla subhaanahu wa taala delloo waat ci seeni xol benn mbir mooy mbir bi ñuy waxtaanee mooy kóolute gi jaam bi di am ci yàlla nga xam ne mooy mën a tax mooy mën a tax mu taxaw ci kanamu jafe-jafe yi loolu bi ko yàlla wàcce waatee delloo ko ci xolu yonente bi def ko ci xolu jurit ñi ci lañ taxawaatee dëgëral seeni tànk jaamaarloog seeni noonu ba yàlla defal leen gañaay mais li ñuy jàngee foofu rek mooy jaamaaroo nag seeni noonu yor ci kàttan ak ci ay nit loo xam ne mosuñoo yor lu toll noonu loolu yépp ay nit bañ yaakaar ni seen ngañaay ci loolu la dépendre yàlla wan leen ne dépendreul ci loolu sama ndimbal la dépendre loolu kon bu fekkente ni seetlu lañ ko itam li ñu ciy jëlee mooy ne li nga xamante ni mooy ay jafe-jafe bu fekkee jurit bi jaar na ci lu mu metti metti metti bu ci génnee ak gis-gis boobu ci xolam ci ne amul kenn ku muy jël xolam bi di ko ci aj bu nekkee ci ay jafe-jafe di séntu ci moom mu xettali ko dimbali ko ku dul yàlla kon ñàkkatul dara ci jafe-jafe yi ak lu mën a tar tar tar ba nga xamante ne bii bu jógee ci loolu amul ku muy xalaat di ko sant di ko kañ di ko bàkk di di ko delloo njukkal ku dul yàlla foofu nag la différence di amee diggante julit bi nga xam ni pas-pas boobu leer na ci moom dëgër ci xolam ba wéetal yàlla nekk ci moom kooku mooy koo xam ni bu ko ay jafe-jafe dikkalee mu génn ca ma ngay sant yàlla di delloo yàlla njukkal di gis ne mbir mi lépp yàlla mu wuté ki nga xamanteni mom yàlla nettali nañu ci alquran ne jam bu gëmul la jam bu sellalul boromam la wétalul boromam la mom bu nekké ci ay jafe-jafe ma ngay ñaan yàlla naan yàlla yàlla yàlla ndax léeg-léeg yàlla bàyyi jam ci jafe-jafe yi ba buñu ñu gestoo duñu gis kenn ñu xamné kon fi mu ne nii kenn nekku fi ku leen mëna a xettali ku dul yàlla waye nak bu leen yàlla xettalee rek ñu faté ku ne tàmbali di bàkk diw naan jere jafé diw jere jafé diw jere jafé diw loolu nag du melokaanu ab jullit bu ne gëm na yàlla te day wéetal yàlla subhaanahu wa taala melokaanu ab bokkaalekatu borom bi subhaanahu wa taala moo tax kon jullit buy génn ci ay jafe-jafe bokk na ci lim ciy génnaalee mooy am yaqin ci ne ci ndimbalu yàlla la la ci génnee kon war sant keneen ku dul yàlla subhaanahu wa taala loolu bu ko nit jëlee ci ay jafe ak ay nattu ñàkkatul dara yàlla nañ yàlla subhaanahu wa taala boole ci ñi nga xam ni bu leen nattoo dañuy am taxawaay bu mel noonu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 كل مكان اللهم ارفع الذل والبأس عن المسلمين اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق وانصرهم على عدوهم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله